jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ñu ngi ñu ngi leen di gërëm di rafetlu euh, seen teewaay tey fii ci direction générale bu poste ñu ngi fii ak euh, suñu partenaires yi waa Smart Mile ak aussi les conducteurs de de taxi et également l'association nationale des des livreurs euh, sëñ Sall doyen Kébé Ndiaye. ñu ngi leen di jaajëfal vraiment si seen taxawaay di kontaan ci seen liggéey donc échange yi ñu amoon ci euh, fan yi weesu tey dañ koy gën a dëggal donc lii lay wane ne vraiment da ngeen gëm euh, projet bi te incha allah projet bi il faut ñu jëmmal ko te aussi il faut que projet bi mu avancé gars yi gën a gis euh, GOPOS ci Dakar gën ko gis ci circulation bi ñu gën ko lawal bu ko defee bu ko bu ko gars yi commencé di utiliser dinañ xam ne ki GOPOS moo gën yeneen application yi donc aussi leneen li mooy dafa am sécurité am na sécurité ba pare fiable na rax ci dolli produit la bu sénégalais moom donc du génn suñu suñu réew wute nag yeneen produit yi nga xam ne wute nag yeneen plateforme yi nga xam ne sénégalais sénégalais moomuñu ko te aussi bii dafa nekk lu formel wute nag ñi nga xamante ne ay clando lañ ay informel lañ donc il faut ñu dooleel ko may ko doole kattanal ko ba mu jëm ci kanam loolu ku ko mën a def mooy ñun ñii muy poste muy Smart Mile muy euh, les conducteurs de taxi ak aussi les les livreurs bu ñu ko gëmee jàpp si dina dina dina jëm kanam incha allah.